soxna si tur bi ak sant bi. man bu sañang laa tudd ci marché bi laay jaay. yéen en tant que jigéen yéen ñi nga xam da ngeen di traversé fii ci marché bi euh, di xëy di di daan doole fii nan ngeen di dundee fii nga xam moo di quartier bi di euh, metti rek sëñ bi metti ndax amuñu sécurité dañuy xëy dañ ñii la ñuy juwal ñoom barki dem bi ne dañ ñuy andi fii nii dañoo taxaw na ku fi ñëw nangam lañ leen di def di saaganteeg ñun. ñun man daal li ma ciy wax parce que tey damaa gis lii nii mënatumaa wax ndax fi man damay lox ci jigéen parce que damaa gis néew bi moo tax mënatumaa wax mais sëñ bi bu ñu dimbali woon dinañ jël. ak nun ñu mënee dimbale la boo xam ne lujum bi fajar 3 heures la jigéen ñi jóg wala léegi bu ngeen di jóg nan ngeen di pour ngeen mën a agsi ci moo lenn la ñuy def ku ci am loo jëlee taxi jël ku amul daw dox ci risque rek loolu rek la ñuy def defuñu leneen ku am loo jëlee taxi jël taxi ku amul loo jëlee taxi rek nekk ci risque waaw waaye daal jigéen ñëpp a ngi ci risque daal loolu laa mën a wax. waaw man bu sañang laa tudd. di jaay fi ci marché gaar bi. li fi xew nii ñun dañoo xëy suba rek maanaam gis ñu ay di dugg fi ñu ñëw xool fekk na moom rey nañ ko bu yàgg xamuñu nag yenn heure lañ ko rey waaye daal li nga xamee ne moo naqari waa koñ bépp tun xam ko mooy tabax yi dafa nekk ci digg dëkk bi nekk ci xoolu dëkk bi mboolem gone gu war a yàqu ci tabax yi nga war a yàqoo. kuy dawal sare di jàng gens fi nga koy jàngee si kuy tux fi nga koy jàngee si li fi nekk ci mbooloo kenn xamul toom barki démb rek la euh, délégué de marché yi dagg fële ci mbedd ma leen histoire ak mbedd moom bi histoire ñoom ñoom dañ ne kaay leen ci mbedd mu mag mii ñu daggal leen fi bi ñëwee booy dañ leen ku fi lal ñu nangam taan sa ndey parce que léegi fi mu doon ñoo fëpp doole mbooloo lañ fi kenn xamul luñ toll li war li wér mooy marché bi bu fekkee ne munuñu ko écouper nit ñi nekk ci ñi fi nekk jóge fi mënuñu ko nañ toj marché bi parce que lii du marché du lu kenn xam te ñi ko fi doon def bi ñu ko fiy def xamoon nañ ne du dox parce que tabax yi jamono sëb laal la fi nekkoon lii bi ñu ko fiy sosaat fii ñu rayee booy bi ñu ko fiy booba tabax yi mi ngi fi woon te doxutoon marché bi ñëwoon na ba fii te kenn newu fi biñ ko fiy def kon xam nañ ne loolu mun te nekk marché. ban heure ngeen lañ loolu moom ñun xamuñu ban heure la parce que man damaa génn ci suba gi donc gis nit ñi daw dugg fi ma xool fekk ñu ray ko moom ban heure la fi dugg xamuñu ban heure lañ ko feree waaye fii daal moom muy kii muy keneen lu mën na fee parce que ñi fi dëkk amuñu benn sécurité benn sécurité amuñu ko lu ne mën na fexe parce que nit kuy soppiku du moomut boppam lu ne mën na koo def waaw nañ dimbale nit ñi fii ci tabax yi ñu toj ko wala ñu setti meneen pexe parce que lii bu sëñ bi joroon dëgg-dëgg ba gis ni mu demee yaakaar naa des na ci wax que lu Touba doon bañ rek léegi boo fi jaaree kenn nëbbatuloo soo fi jaaree fii dañuy ngàbb seen secret di tox jàkkaarloo yow duñ la faale sax lépp la ñu def booy fii dañuy jaar suñ buntu kër yi yor seen i bidéeli gens doona ci kenn leen ak sañoo ko luñ fi waxu luñ fi luñ fi nekk nag buñ ko bàyyee bu mag ay woyu lay jur ay fàqamaan lañ leen tuddee mais ay woyu jur agressé lépp ngi seen biir parce que buñ màggee du capable lañ lépp fii daal fayoo boo ñu dimbali ñu fi waaw muy maire muy sëñ bi ku ci mën a jot la buy journaliste ku ci mën a jàppale bañ dimbali ñu tabax yi nañ ci dimbali parce que dafa nekk ci digg dëkk bi ba noppi li fi nekk insécurité bi dafa ëpp. waaw sëñ Fallou la sëñ Fallou Mbaye. sëñ bi Mhm. waat nag délégué de quartier bi bokkut ak délégué de marché bi. Mhm. waaw man maay délégué de quartier bi. waaw tey ñu xëy suba yow ak naqar ci quartier bi li nga xam ne moom moo di gaar bu mag ni ñu koy waxee mhm. mu yàgg di am ay ay ay mbir yu fi faral di am yow mi nga xam ne yaa fi dëkk fii nan ngeen di dundee ak ñi nga xam ñoo fi nekk. metti lool metti lool parce que mënuñ suufee fee yor ak jur ah xale bu fi dugg it sa fi du dal waaw tam nekk ci diggu dëkk bi ah, buñ sañoon daal ñu def ko ay kër maasale lépp def ko ay kër su ko defee ku fi tëdd amuñu njaboot sa sa sam xel mën a waaw sécurité moom amuñu ko waaw. mu mel ne yow bokk nga ci kilifay gox bi fii yàgg nañu wax yu mel di fi am ñaari fan ñett lañ koy wax mu jeex lan ngay lancer appel solennellement ma xam moo di njiitu réew mi ak euh, le xalif général de seen mu Mountakha non nun moom mhm. dañuy jox ndigal waaye duñ jël du joxe ndigal mhm. waaw waaye lu ñu gën nun dëkkandoo yi fi dekk mhm. moo ñu rajaxe ko def ko ab marché def ko ay kër ndax barab boo xam si nii kuy doomi sëriñ Touba wala ngay seexu sëñ tubaa wet nga fi saw ñaq ñu def ko ay marché ñugu ñugu yoo xam ne ba sëñ Murtala neloo gudd ba léegi jaaduwut buñ ko defut kër sëriñ Touba defuñu fi leneen nañ ko def ay kër sëñ Maodo Moustapha carrière bépp fii la ko def ba mar ba ba teen bi mu bënn fii teen baa ngi fi ñu sàkk ko ci lu dara waaw maanaam nag lii day lu bees waaye du tey rek lañ jëkk Baye Fall yi bale marché ci màggal gi fii leen di gën a sonn ci dëkk bi bépp waaw sunu sañoon daal moom buñ ko munta def kër Sëñ Tuubaa nañ ko rajaxe def ko ay kër waaw loolu daal moo ci sama wax xale am na fi boo xam ne maanaam fi la dëkk fi lay liggéeyee ni doomu bi doomu askan bi tey gis ko nii ci wax loo xam ne comme message. waaw ngi dëkkee ca Boori Ngiraaneen waaye bàyyi mi ngi liggéey fii ci gannaaw raay bi waaw waaye it yàgg na ma ak ñoom waaw metti moom fu mu métti tàmbalee fu mu yem rek fa la tàmbalee waaw waaw jërëjëf. liggéey mu ni bu àggee moom la ko la ko dem ba na waaye liggéey na ba wàcc non non liggéey dem dem aju du liggéey aju waaw du liggéey aju moom la ko mhm. xam nga mhm. léegi aju bu du liggéey ñu xëyee mu sangu ne papa maa ngi dem ma ne xale ginnaaw maam Faty ginnaaw toog ngeen ginnaaw tibb leen añam bàyyi ko tibb añam bàyyi ko man ma di toogee ba cinq ma ànd ak sooda sooda dafa di bëgg ma ànd ak sooda andi ko wàcc dem kër sama kër gi nekk Mbacke faani foofu sama takk bi nekk foofu bi ma duggee oto di ñëw ñee ma ñëwal léegi danaa soxla ci gaar bi ma ñëwee yem ci lii ah ci suba gi waaw tey Eumeu Sène te moom gone la dafa mel ne ay fukki at ak la ñu. 14 la am 14 ans waaw. 14 la am. Elimane Thiam tudd sama baay laa ko tudd. Elimane Thiam la tudd. sama baay laa ko tudd waaw waaw.